والكرم وصحابته سوي السنان والمقال المهاجرين منهم والأنصار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي نيو لين دي نيو مبالي في تيو غور جيجين مات ناو دي لين نيو تام نيو اسلام nga xam ne moo gën ci nuyoo yi te mooy nuyoo waa aljanna di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ci jiital suñu sëriñ suñu kilifa nga xam ne moo fi yeeweeku léegi te àndoon ak ñun ci jotaay bi ca njëlbeen ba fu ñu toll nii di sëriñ Baye Haadi nga xam ne baayam comme nit ko ni ko ñëpp waxee di waajuram bu góor moom ak sëriñ Baye Babacar Caam la woon te Baye boole woon leen radiallahu taala anhu ñu ngi koy ziare bu baax da ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam waaye yal na yàlla wéral ay cëram yal na yàlla dëgëral taxawaayam di nuyu tey ziare itam lu bëri te itam di am kersa lool di yëkkati ay kàddu ci kanamam muy Cheikh Sang Barhama Ndiaye nga xam ne suñu sëriñ la suñu kilifa la te doon géej goo xam ne laa saaxila lahu amul tefes loolu moom firnde bi feeñ na tey ndax li fi wax lu mu gàtt gàtt yëngal na tànt bi waaye delloo na ñëpp ci yàlla kon alhamdulilah sang bi ñu ngi lay nuyoo di la ziyaara ci turi muqaddam yi waaye di la ñaanalee la itam yal na yàlla guddal saw fan yal na yàlla gën a dëgëral sa taxawaay ci diine islaam yal na yàlla gën a dëgëral sa taxawaay ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu gën a dëgëral sa taxawaay ci faydu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu euh, li ñuy sàkku ci ñun mooy ne borom bés bi di bàyyi Babacar Thiam radiallahu taala anhu ñu wax tuuti rek ci ay karaama yu nga xam ne ak ngeneel yi nga xam ne yàlla def na ko ci moom waaye damay wax ne balaa ñuy mën a wax ci bàyyi Babacar Thiam radiallahu taala anhu ñu waxagum tuuti rek ci ki nga xam ne moo ko nampal moo ko forme muy Baay Ñas nga xam ne mooy xalifatullahi fil ardi mooy saaxibu faydati tijaani kooku mooy ki nga xam ne moom la yàlla hebal ci mbindeef yi ci mu jóg jamono pour mu defar leen kooku nag moo waxoon ne aw jalani xaqan li kasri fa inni xaqan wakiilu sirri sirri nee na man de yàlla amal na ma pour euh, ma jàng dammu dammu yi boroom xam-xam yu bari nag dañ koy firee ne dammu damu yi comme ni ma ko waxee noonu waaye benn dammu dammu rek moo am muy ñàkkaa xam yàlla walla boog ñu waxee ko réeree yàlla benn dammu dammu boobu dong mu am bàyyi moo ko jàng nag moo tax mooy borom jamono baay moomu moo waxoon ne ummati qasdi fihimu an asuqahum ila xadrati bari raufi ilahina nee na suma xeet wi lii suma jubluwaay ci ñoom mooy ma xomat leen jëmee leen ci pay ki nga xam ne mooy baru mooy ku baax ki mooy yàlla ndax bàyyi suy wax rek bu nee ci tur yàlla yi lay wax wala ci tur yonte la Muhammad sallallahu alayhi wa day xool tur bi nga xam ne moo déppoo ak maqama bi rek mooy mu ooyee ko tur booba moo tax mu waxee ko barru fii ci mbaaxam rek ci la euh, jëlee ay ngeneelam def ko ci ay jaamam ba defar leen ba ñu nekk ay nit kon alhamdulilah su ko defee bàyyi Babacar radiyallahu taala anhu kooku moo ko nampal ñu xam ne Baay Ñas moomu radiyallahu taala anhu képp ku jëlee ci moom dangay nekk ku mat waaye dangay jotee mboolem jaam yàlla yi te mboolem ku fi toog tey xam nga ne Baye Babacar Thiam radiyallahu taala anhu am na fu mu jaar yow foo xam ne doo ko mën a fàtte mukk ci àdduna dangay xam ne baay Babacar caam jaar na man foo xam ne kenn mosu fee jaar man kon Baye Babacar Thiam moomu noonu rek la mën a mel ndax kii nga xam ne moo wax wax jii ma njëkkoon a wax ci moom la nampee Baye Babacar Thiam nag dafa feeñaloon ay mbiram dëpp muy nekk tuut tànk Baye Babacar ba muy nekk tuut tànk radiyallahu anhu boobu la ay mbiram feeñ ndax dafa nekkoon gune goo xam ne fu mu toogoon dafa doon fees dell ak xaal di jaayu di yaanu motomam yi nga xam ne maase woon ak jamono dañ doon toog ci wetam mu yaanu ñu koy seetaan wala muy muur muuri ñuy ànd ak moom Baay Babacar Thiam li gën a yéemu ci ay mbiram moo di ne ki ko yar doonoon kilifam di nijaayam ab chrétien la woon amoon pour lool ci christianisme kooku moo ko yaroon dugal ko ci seen école bi ñuy wax 4 6 4 6 boobu Baay Babacar Thiam radiyallaahu taala anhu demoon na ba maîtriser ko ba ñu war ko euh, baptiser bañ demee ba nga xam ne ñu ngi ko war a batisé nag ñi nga xam ne ñooy ay kilifa ci jamono boobu ñoo ko gis xam ne kii yoon bi ñu ko ñar ñu ko nar awloo yoonam kilifa yooyu ñoo dem ci dan ne ko kii day da ko war a jëlee ci nijaayam nga ko ci daara ji mu jàng alquran loolu mooy mission am ndax mag ñi suñ magu séeréer yi yàlla def leen mayon ñuy gis lu sori loo xam ne ñëwagut euh, la ñu bari ci kilifa yi gis loolu wax ko bayam ko fa dem dugal ko ci daara ji Pape Diop wax nijaayam boobu meroon na ci lool ndax dafa yaakaaroon ne xëy na baayam ko jàmbu waaye du jàmbu ndax dañoo gis yoonam ñu yóbbu ko mu dem ci daara ji ba gis nga fi ko yàlla indi tey nga gis tànt biñ ko tàntaal nga xam ne fañ ko naroon a yóbbu foofu du palaasam moo tax baay moo ko tourné baay moo ko tourné indi ko ci biir pays bi jox ko fi xalaat boo xam ne kenn ci taalibe yi ndax moom moom la defoon mu nekk xutbu zikrullahi nga xam ne tant bu mu toogoon bu yëkkatee hayla laa rek xol yëpp ay dellu ci yàlla kon alhamdulilah loolu mayam la woon baay Babacar Thiam radiyallahu taala anhu buñ fi toogoon di wax ay mbiram ba borset yaakaar naa ne duñ ko mën a jeexal waaye liñ mën a wax jàmm yàlla rek mooy ne Baye Babacar karaama la ci Baye Niass radiyallahu taala karaama ci Baye Niass la kon alhamdulilah ni ko Baye defaree noonu la defaree ay taalibeem noonu la defaree ay taalibeem kon taalibe liñ leen mën a wax mooy nañ defarwaat nañ defar defarwaat bi mooy lan mooy nañ fexe raxas xol ndax xol boo xam ne setul fay du du fa am place moo taxoon bàyyi bi fay bi du bi di waaj a ñëw radiyallahu taala anhu daf waaj mu wax ne wa taati qariban faydatul xatmi hayyi'u bi tafriqi axyaarin fa tuxsa bi mawdiin bàyyi ne faydu faydatul xatmi mu ngi ñëw ci lu jege mu ne préparé leen waajal leen ko lan ngeen koy waajal mu ne tuur leen lépp lu nekk ci ndab yi ndab yi xol yi la ci jublu woon kon lépp loo xam ne tilim tilim la ci xol yi ñu fexe génn ko ci suñu xol yi moo tax mu ne inal awaani qad muli na fa xayriha ala fafrixuha tattaqu kulla anfa waaye mu ndab yi fess na del ak lu bokut ak faydu mu ne maa ngi len di wax ne deug tour len ko su ngeen ko rek na ngeen di ak ay njëriñ koy loolu yaakaar indi na jafé jafé ci biir talibé yi ndax boo fekk ay talibé ñu ngaayo la di xëccio maqama ya xëccio ay cër di yootu maqama yo xamne amuñu ko loolu xol bu ñaka set rek moko waral kon alhamdulilah du ñu mën a guddal kàddu yi alhamdulilah ñu ci jégalu bu baax a baax lu ci rafet rek ci yàlla la waaye lu ci dëng ci ñun la jaam yàlla bu matul la te itam euh, jaam noonu rek mën a mel ndax noonu la ko yàlla bindee te itam euh, lii dañu forcer suñ bopp rek def sacrifice ci suñ bopp waaye dañoo nekk nekk ñoo xam ne suñ yaram dafa suttaake euh, mënoon naa sax ñàkk a ñëw waaye euh, bésu baay Babacar Thiam radiyallahu taala anhu comme niñ ko waxee fi mu jaar ak ñun euh, ak nu mu mënti mel rek bu dee du ñu dañ ñuy omat wala ñu yëkkati ñu andi ñu fi sax danañ fexe teew bu dee ñaari minute kon ñuy jégalu ñëpp di jégalu sëriñ bi ci kàddu yi ñu yëkkati ci kanamam waaye di ci jégalu mboole mbokki taalibe yi di leen jaajëfal di ñaan yàlla yal nañu yàlla may ñu fekkee ko déwén fekkee ko déwén yu bëri mu ànd ak wér ak tal jaamu yàlla guñ nangu teranga ju sax ci zaahir ak ci baatin euh, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam